acca jërëjëf bàkk ba jib na générique ba départ na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo wasaare làmb ñu ngi lay nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant mbokk yi tey ñu fas yéene waxtaanee lu bare bari loo xamante ni semaine bi jot naa xew ci wàllu làmb yaakaar naa ne bu ñu nekkee ci weeru koor yéen ñëpp xam ngeen ne activité làmb lu bare bare bare day xaw a taxaw waaye teewul saa su ne rek dinañ leen dégtal ay information yoo xamante ne jot naa xew ci làmp bërki démb jëlali nañ leen xale bi nga xamante ne mooy Fils de Balla ci digganteem ak Jamaïcain journée bi nga xamante ni waroon na ko bëre le 20 mars bi weesu ci diggante ma Gora mu am ay leeral yu baree baree bari yoo xamante ni jot na ko cee joxe wax na ni du bëre promoteur bi mois d'août août boobu mu wax ni du ko bëre lu baree bari waxtaan na ci wax na li tax mu ne du ci bare dañuy dem ci fils de la jëli loolu nga xamante ni jot na ko ci wax rek mbokk yi su ko defee ñu joxe suñu xalaat indi jàngat bi ay ca ñu dem. ay mois août la wax de. onze août xaw ma le quatorze août la jàpp. man wax naa li ma koy wax leer man dara mu nga jàpp arrangé wu ma pour ma bëre si voilà. arrangé wu la wu la arrangé. man. na ko jàpp ci juillet bi wala juin bi ñu jàpp ko. ah mais ñu xool rek moom date bi xam nga date bi mu yóbbu la ko woon. ñoom Tafa Gueye ñoo ko moom dafa dem wax ak ñoom ñu may ko dat na jéem a xool rek def. mu dem ñaaniwaat dat. waaw mu ñaan dat. xam nga ne ñaan na dat ñu jox ko la quatorze août. non la quatorze dafa sori. ndax mun na préparer sa combat dañu waxante ba ne trois jours gaañu ko bëgg a toogaat cinq mois di préparer waat. nañ waxoon dëgg dafa métti cinq mois dafa métti cinq mois préparé nga si combat ba bëre ba daan ba xool wala leneen cinq mois daa métti. mais cas force dafa am mooy sa adversaire dafa blessé ñu dem ñaani date bind CNG. CNG jox leen le quatorze août. yow boo nee doo bëree le quatorze août est-ce que du jur. jeexi jaaxase loolu moom wax dëgg yàlla waxoon naa ko ko le quatorze moom nee naa ko moom loolu moom arrangé wu ma sax en plus août ci nawet bi lay tombeel mën nga préparer sa lamb ba ci jour mu taw bu tawee looy defaat. da ngay reporter combat bi. déedéet. bu tawee. déedéet bu taw taw yoonam. arène nationale be mun naa dékk ndox mu ne. mais bu tawee yéen ñi yéen doo leen filmé bu tawee yéen seen caméra xam nga doo ciy def. loolu mbuus. au niveau boo demee équipe yi dañuy football te teewul day taw ñuy ñuy filmé. bokkul ak fii euh, au niveau nga wax fii nekk au naan au niveau. du sax benn loolu laa bëgg xam foofu nekkul sax benn. waaw nawet moom nawet kenn du ci bëre. voilà nawet moom kenn du ci bëre. Hmm. Hmm. mais actuellement dañ ne Balla Gaye 2 bu bëree la set dimanche bi ci topp ci ngay bëree. Balla Gaye 2 fu mu mën a bëree nawet Fils de Balla wor naa mën a bëree nawet. mais moom moo man man moom pare moo pour bëriwut Balla Gaye nga wax. est a daw combat. taw lu may daw. bëriwul pare moo pour bëriwut. waaw ah, am naa ci droit man lu ma arrangé laay xool may xool lu ma arrangé def ko man du ma xool moom lu ko arrangé wala waa CNG loolu la ah, man lu ma arrangé sama bés la. sama tànk Fils de Balla waxtaan àdduna ñoo ñuy seetaan. Gora Sock ñoo ko moom. promoteur bi jël xaalisam jox leen ko nag moom lan la ci am. waaw moom mais ñun ñun ñun ñaar ñun ñaar a tax ñun ñaar moom bés maa ngi Gora Sock ñoo moom bés bi bi suñu bés la. déet géew gi seen bis la. askan wi ñëw di seetaan si. bis bi suñu bis la man moom. maa ngi Gora Sock moom bis loolu laa bëgg mu xam nga man damay xool lu ma arrangé ma def ko lu ma xool lu ma arrangé lu ma ko def am naa ci nañu waxante dëgg jàpp 14 bi waxtaanoo leen ci yéen ñaar. ci ba léegi ba léegi ko moo ko ma daal août laa ko bëgg a jàpp. waaw wax la wax jàpp mais waxuma la 14 waxuma la 7. loolu daal la mu wax dana ma daal août laa bëgg jàpp. moo waxtaan si ñu waxtaan ñu ma août baaxul. am na ñu ma si waxal ñu ne ma août bul bëri août. voilà te ñooñu moom dama teg seen wax tamit waaw ku ne da am kilifa waaw. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la Fils de Balla wax Fils de dafa am benn côté boo xamante ni duma ci ànd ak yow li tax duma ci ànd ak yow mooy ñi may digal dama am kilifa ci làmb waaye ñi may digal yépp nee nañ ma bul bëre ut ndax ut bi baaxul man nag dama jàpp ni boo si signé contrat am lu la lié ak promoteur bi moment boobu moto sa bopp promoteur bi moo la moom tey say staff say encadrement say kilifa lépp lu luñ la mën a waxal mooy demal bëri ji mais ñoom tënkuñu la contrat moo la tënk contrat boobu tey moo la war a mën a wax ni date bi ngay bëre ak date bi nga dul bëre yaakaar naa ne bu fekkee dañuy négocier sa combat moment boobu mun nga am kilifa mun na la bul jël combat bi combat bi arrangé wala jëlal combat bee mais combat boo xam ne dugg nga ci ba pare signé contrat bi ah sa mbër sa adversaire am blessure kon loolu cas force majeure la kor cas force majeure boobu bu amee li jot mooy ñu sauver bis bi ni ñu ko mën a sauver nag mooy ñu xool promoteur bi kañ la mën a adversaire bi kañ la yóbbu dirigeant am ñu yóbbu ko au niveau du CNG promoteur bi bind date ñu jox ko date boobu di la 14. yaakaar naa ne nag loolu lépp bu ngeen gisee mu xew mooy euh, jot nañu waxtaan xëy na yaag promoteur laaj naa la nga ni ma jam am na lum la wax mu metti la loolu waaye loolu yëpp ci milieu ci liggéey la bokk parce que yaakaar naa ni li wolof naan ñi bokk teen ñooy laxasooy goj yéen ñaar ñëpp am na ci loo xamante ne vraiment liyee na leen ko jam mbëri say say say say say frère lañu yaakaar naa ne ndër nit boo ko joxee avance am na ci foo xamante ne bu fa tolloo du da ngay xëccoog moom mais da ngay naxtaan ak moom promoteur tey dafa war di naxtaan ak mbër ndax mbër vraiment des fois am na ci loo xamante ni maîtriser wu ñu texte yi maîtriser wu ñu règlement yi maîtriser wu ñu contrat yi ñoom saa su ne rek dañuy jàpp ni ñoom ñoo nekk ci yoon mais yow mi jël sa xaalis joxe ba pare di xaar dafa jotkat kat yow moomu nga naxtaan ba jot li nga xamante ni mooy bis bi nga soxla muy combat bi. vraiment ñuy ñu ñu koy leen ñu leen di jaajëfal bu baax di ñaan yàlla na ci yàlla def jàmm ba lépp loo xamante ni bëgg nañ ko ci ñoom ñaar ci làmb ji ku ci nekk am ci lu sa njort ñu bëre promoteur bi gis ci boppam mbër yi gis ci seen bopp su ko defee ñu mën a gën a continuer mbokk yi ci loolu lañuy jaalee ñi nga xamante ni ñooy waa Mbour. Père Jibi Maalaw mi nga xamante ni génn na àdduna Père Jibi Maalaw ku ko xam-xam digganteem ak Bombardier ku ko xam-xam ni bari na lu nekk ci Bombardier moom Père Jibi Maalaw moomu moo ko ci def Bombardier nangu na ko saa su ne bu toogee da ngay dégg ci ay discours wala ci ay waxam muy cité ki nga xamante ne mooy Père Jibi Maalaw moom lañ ñu yëgal léegi ni gaañu na ba ñu yóbbu ko fale ci Touba ñu ngi ñaan yàlla na suufu Touba woyof ci kawam. di ko jaale képp koo xamante ni doomu mbuur nga di ko jaaw jaale écurie mbuur di ko jaale B52 de mbuur di bombardier di ko jaale Gallo di ko jaale képp koo xamante ni rek vraiment doomu mbuur nga ñu leen jaale bu baax a baax a baax père Jibi Malaw bomb mbokk yi dañuy ñëw ci li nga xamante ni jot ngeen ko gis tey ci journal sunu làmb mu fësal ko ndox ci diggante combat bi Assane Ndiaye Bawol production taxawal mu dox ci diggante euh, kéwal bu bawal ak Tidiane Faye le professeur de Lansar ñu gis ni combat boobu kii di jam production taxawal na ko moom it mu dox ci diggante kéwal ak euh, kii di jokkel bu Fatick mu jur ay jiixi jaaxa jur ay coow loo xamante ni mën naa ñàkk ci làmb tey nag suñu papa Bira Sène lii la ñuy xaar ci seen CNG bi tey lii bokk na ci loo xamante ni day defar làmb lii bokk na ci li nga xamante ni ci nga war a mën a wane sa bopp ndox yaakaar naa képp ku nekk ci làmb yaa leen yilif muy mbër muy promoteur muy ménageur ñoom ñëpp yaa leen yilif kon jot na nga woo jamaïcain jot na nga woo euh, ki nga xamante ni mooy ménageur kéwal jot na nga woo ki nga xamante ne mooy Assane njaay ñu toog waxtaan ndax nag wolof daf ni ñett dëgg mënul am dëgg benn dëgg rek moo mën a am ñoom ñett ñooñu ñëpp bu ñu toogee am na ki ci am dëgg ñu ne ko kat yow mii diw yaa am dëgg yow mii am dëgg tey nañu la jox dëgg ki nga xamante ni mooy beneen promoteur bi nga xamante ni jàpp nañ ni joxe na xaalisam wala nekk na ci njuumte ñu fexe moomit mu xool bu dat bi jàllee beneen dat bi mu mun cee bëre ndax yaakaar naa dat yi bari na journée yi bari na te mbër yi bari nañu affiche yooyu bu ci nekk affiche bu neex la ginnaaw loolu xam naa dañuy dugal ki nga xamante ne mooy Saliou Ba moom mooy ménageru kéwal ndax moom jël na ñaari avance comme moom moo signé loolu dina wax nan la def ba signé ñaari avance yi ban mbër ban promoteur la njëkk a jël xaalisam ak lan moo tax mu signé ñaari avancé bi muy signé avancé ba xam contrat yi beneen contrat bi lan moo ci nekk loolu yëpp dañuy bàyyi Saliou Ba su ko defee ñu dugal ko ci ligne bi mu waxtaan ak ñun jox ñu leeral bu baax a baax a baax ay ñu jël Saliou Ba. allo Saliou maa ngi lay siyaar. waaw Baye ngi lay siyaar. noo def ak coono. alhamdulilah di yàlla bu baax a baax. naka koor gi. waaw ñu ngi sant yàlla di bi. Mm-hmm. di baalu àq ñëpp. Mm-hmm. lépp lu fi waay wóor yàlla na ko yàlla nangu. amiin yaa rabbal bu baax a baax. Mhm. Mhm. waaw Saliou dañu la woon ngir bëgg am ay leeral yoo xamante ni bëggoon nañu ko am ci diggante euh, kéwél mi nga xamante ni yow yaay ménageur am. Mhm. ñu dégg ni signé contrat diggante moom jam production. moom mu war a ñu bëgg ko jàpp la quatorze août ñu déggaat ne kéwél boobu jël na avance Assane Ndiaye war a bëre Tidiane Faye bu Langsar yan leeral nga ñu ci mën a jox ba mu jur ñaari coow ci diggante ñaari promoteur yooyu. jërëjëf euh, Ba Jili <coughs> euh, jàmm euh, yàgg nañ ci làmb maa ngi moom. Mm-hmm. Seex Anta mi xam ne mooy màggu kéwél tamit yàgg nañoo liggéey maa ngi moom mm-hmm. yàlla dafa def Seex Anta nekku fi. Mm-hmm. moom mi ngi Touba ak Kewel nekkuñu Dakar. jam mm-hmm. bi nga xamante ni soxla na combat mm-hmm. moom moom moomu ma Cheikh Anta la woo. Mm-hmm. ngi dégg mu waxaale ak Cheikh Anta ba bare. mu ne ko léegi kan laa avance mu ne ko Saliou ba nga may joxal avance parce que man maa ngi Touba. mu woo ma ne ah, mu ne ma ak Cheikh Anta ba bare. ma mm-hmm. ne ko ci na ñaata mu a waxaat nañ nangam ba pare ma ne ko léegi lu mu la wax mu ne ma nee jox la avance. ma mm-hmm. ne ko kañ ngay ñëw mu ne ma subaa daa ñëw mu ne ma fan laa la fekk ma atelier fi ngay liggéey. Mm-hmm. mu fekk ma foofu jox ma cinq cent mille. defal ma décharge ma signé. moo seexante na ko euh, jamaïcain ngi di génn. nee na euh, euh, jox na ma jox na ma cinq cent mille defal naa na ma décharge ba génn na. mu ne ma maa ngi la bëggoon a woo sax parce que booy bi dama ko wax jokkeel mu ne ma mënut a bëre ak moom. booy bi moo wax loolu. moom Cheikh Anta moom wax loolu man bu kii ba léegi waxuñu ko. waaw. Mm-hmm. Cheikh ko waxee ne ko jam defal na ma desaar ba jox a ma cinq cent mille. Mm-hmm. ma ne ko mi ngi nii di soog a dem. Mm-hmm. xaalis baa ngi ci man fan laa la koy defal. dama koy def fii wala orange ma ne. mu ne ma dama koy téyel parce que dama ko dugal sama compte. léegi. ma ma ne ko mi ngi jox na ma xaalis yi mu ne ma booy bi nee na bëriwul ak euh, kii ni nga waxatee Jokal mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ma ne a demee noonu man man a mu ne moom maa sax mais ko jox na ma xaalis bu pare waaye. Mm-hmm. ci biir loolu ma ne euh, waa jam na ko jam de affaire cat dugg na ko ne ma lan la ma ne ko seen entraîneur booy bi noonu bëriwul ak Jokal ma en tout cas signé dama pare. ma ne ko léegi seen entraîneur bi delloo xaalis mu ne ma noonu xaalis téye ko man ci naa pare même pas quatre heures de temps. dama mm-hmm. jox dix euh, sept heures dix euh, seize heures dix sept heures moom dix huit Anta waxoo mm-hmm. waaw problème daal noonu la demee. mais Saliou est-ce que yéen bi ngay bi ngay signé contrat Jam Production est-ce que tey euh, du da ngeen a amoon beneen proposition ba tax ngeen ngeen ngeen ngeen génn ci boobu dugaat ci beneen ndax li nga wax ci Cheikh Anta Cheikh Anta bu demee ba d'accord. ba jam di la indil avance kon am na accord bi li tax Cheikh Anta moom jëlul téléphone am woo jam production wax ko ni combat boobu kat yàqu na. yow mi nga xam ni comme yaay en tant que manager yow mi nga xam ni dañ laa woo rek ne la mbër mee ngi ñëw euh, promoteur bee ngi ñëw signeel nga dem signé ji. waaw man naa am ne dañoo am ci leen liñ nekkoon parce que su ma juumul. Mm-hmm. parce que beneen promoteur bi nga xam ne moom moo taxaw beneen combat bi Assane Ndiaye. Mm-hmm. moom woo na ma mm-hmm. Thiam daf ko woo. Mm-hmm. ne ko damaa bëgg combat Jokal ak ak ak kii ni ñu koy waxati ak euh, Kéwel. Mm-hmm. ngi dégg Assane Ndiaye Assane Ndiaye waxtaan ba jubóo. ci li ma mm-hmm. Assane Ndiaye wax. ñu euh, ko dem jox Jamaïcain taxawal ko. xam naa seen problème yooyu lañ nekk mais man moom xam nga benn am. Saliou waxaale naa ak moom jubóo xaalis baa ngi nii euh, Cheikh Anta bëreetuma ak moom. loolu laa ci am. Hmm. léegi waaw léegi euh, bu jam bu jam nanguwul jël xaalis bi te signé nga contrat bi ba pare lan moo leen ci mën a fekk. lu a fekk su doon CNG mën am nga droit taxaw 24 heures yoo xam ne li hmm. ci li mooy ñu lekk xaalisam wala mu manqué wala ñu ne am xaalis suba mot xaalisam dara manqué ci mu ngi nii sama poche. Hmm. waaw lu ci mën a fekk dara. xaalisam dërëm manqué wu ci te matul sax euh, trois heures de temps boo ko delloo xaalis su fanaan sox ñu mën a wax. Mm-hmm. xaalis bi fanaan ci moom. dama ko jox dix sept heures euh, seize heures dix sept heures dix huit heures moo woo mm-hmm. waaw fekk moo damaa jàpp bu ma koy jox noonu après ma pare woo Cheikh Anta ma julli ba pare woo Cheikh Anta waxoo loolu. Mm-hmm. parce que am na image yu ñu gis bi ngay bi bi jàpp di indi contrat bi yaa ngi ci sa biir place. sama biir place même sama adversaire contrat ci man la ko man la ko bàyyeel ba léegi jotagu ko sax. Mm-hmm. waaw jëlu ko sama adversaire jëlu contrat bi. Mm-hmm. waaw. jërëjëf maa lay jaajëfal bu baax ci leeral yu am solo yow jërëjëf waaw mm-hmm. ok. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la Saliou Ba wax noonu mu nekk ay leeral yoo xamante ne leeral yu am solo la ci làmb mooy li ma wax rek problème amul waaye ñàkk déggoo day am ci làmb ndax ñi nekk ci làmb ku ci nekk dafa am intérêt boo xamante ni moom moo la liyee ci biir làmb ji promoteur li ma bëgg mooy gis mbër moo xamante ne am na coow sénégalais yi ñëpp bëgg nañ ko combat nga fexe ba démarché ko waaye boo ko demarché yeneen promoteurs yi nañu muñ xaar xam ne làmb day continuer mbër moomu dafay continuer di ku yàlla tudd ni mooy sa wërsëg nga tëgg ko nga war koo tëgg nga tëgg ko mu nekk loo xamante ne vraiment bokk na ci liy defar làmb waaye bokkul ci li nga xamante ne day yàq làmb saa su ne rek nga gis promoteur nekk ci biir journée beneen promoteur jaar ci suuf tëgg ko loolu du dara ci làmb loolu ci sport boo gis ci réew mi bari na ci ay sport yoo xamante ne da ci am mais taxul ngeen nekk ay noon taxul ngeen nekk goo xamante ne vraiment da ngeen di ñàkk yéeneente jàmm ndax làmb jàmm rek moo ci xaj ñuy ñaan rek yàlla na ci yàlla def jàmm képp koo xamante ni vraiment membre nga ci CNG bi nga jotali ko président Bira mu fexe waslu ci àq ndax woo naa kii di Assane Ndiaye Baol production bi ma ko woowee moom lim ma leeral mooy diggante Jokkel ak kéwal bi mu koy dox ak léegi mat na deux mois wala un mois yoo xamante ne moom Assane Ndiaye Baol production mu ngi ko doon dox. mais bi mu ko doxee ba noppi euh, dafa dem ba ci digg bi làmb ji làmb ji yàqu parce que kéwal moo ne woon buggul bëre ak jokkel nee na mu nekk ci loolu di ko wutal di ko wutal di ko wutal ba wutal ko adversaire adversaire bi mu ko wutal mooy Tidiane fay bu Langsar kéwal nangu nee na moom amul benn contrat boo xamante ne luyee na leen mais waxtaan nañ ci kàddu kon tey bu mu déggee mooy contrat ver am na ci seen diggante mooy ñoom ñaar ku ci nekk waxtaan na ak moroomam ci ay kàddu ba mu yëkkati avance jox kii di kéwal ci noonu laa woo Jamaïcain moom it mu expliqué ma li mu ma expliqué mooy déggoo naa ak ki nga xamante ne mooy agent wu kéwal waxtaan nañ proposé naa ko prix mun a prix boobu arrangé wu ko ci diggante ak Jokal mu wax prix bu bu mu fixé wu ma fekk ko ci piri boobu bi ma ko ci fekk see ñu déggoo man ak moom ma ne ko dama bëggoon mu bëreel ma combat spécial diggante Gora Sock ak Fils de Balla moom ak xale bi nga xamante ne mooy euh, Jokkel nee na ñu nangu d'accord ci piri mu dem yóbbu ménageur ki nga xamante ne mooy euh, kéwal xaalis bi mu signé contrat bi moom mu téye contrat am kon jamaïcain nee na moom mu ngeeg contrat boo xam ne ménageur bi moo ko signé waaye am na leneen loo xamante ne lu bees la mooy ménageur bi expliqué na ni même CNG bi sax may nañ la soixante douze heures bu dee combat bi arrangé wu la bu la neexee mën ngaa dem delloowaat xaalis bi euh, euh, dellowaat xaalis bi annulé contrat bi réglement bi may na la ko.